mbir mu doy waar lañu nemmeeku fi nga xamante ni mooy ci diwaanu buun àllarba bile weesu ab ndaw soo xamante ni ay atam mi ngi toll ci fukki at ak juróom di wuyoo ci turu Birane moo daal di xaru jaaree fa ñàkk bakkanam Birane boobu nag li ko waral mu daal di xaru du lenn rek lu dul ni que ni daal dañ ko bett muy bànneexu ci ab xale boo xamante ni ay atam mi ngi toll ci ñetti at ngir beñ nag gàcce goo xamante ni day bàyyi ko ci ab famem moo waral moom mii di Birane daal di bàyyeekoo ci étage bi wadd jaaree fa ñàkk ba xenam ginnaaw loolu nag ñi nga xamante ne nii ñoo fa ne daal di woo waa sapeur bi ñu yëgsee nag daal di nañuy jël ki nga xamante ni moo wuy ji boromam di Birane daal di koy yóbbu fi nga xamante ni mooy ci diwaanu hopital ngir mën a def seen autopsie.